asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa euh, man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveillé conscience euh, su ngeen ma gisee rek euh, ma wax toujours ci liite réew mi liiteel waa Sénégal képp mooy li nga xam ne moonu ñor fii ne ci New York yàlla dogal na tous les Sénégalais tous les Sénégalais dans l'ensemble tous les Sénégalais dans l'unité dana joxante rendez-vous tey à la 116 Adam Clinton Powell à la 116 maanaam 7 avenue euh, ñun ñëpp ñu war fa bokk daje pour li nga xam ne moo xew Sénégal Macky Sall di ko doxal te dal lu ci dëgg dara lu ci yoon euh, nu war a jóg nag dajaloo naqarlu ko nañ ko daal defee. Euh, yéen waa New York yàgg naa ak yéen yu mel nii bu amee buñ ko tuddee wax ko jàmbat ko. trois stades yi sax dana am ñu fa jógee dana am jóge dana am ñu jóge New Jersey dana mu jóge Pennsylvania sax dafa am ñu fay jóge euh, ñooñu ñëpp dikk pour nu ànd euh, li nga xam ne moom lañ bëgg na xaru li Macky Sall yi def nu bokk ko defandoo euh, may del di woo ñëpp te kenn ku nekk war ngaa woote kenn ku nekk wool sa moroom kenn ku nekk booy ñëw yor sa oto indaaleel kenn wala nga indaale ñi bëgg a ñëw daañu taxaw nag mu manifestation boo xam ne fii moom manifestation piscifole moo bu jàmm manifestation boo xam ne dañ koy bokk def expliquer américains yi ni mu demee ñu dellu di invité étudiants yi comme ni ngeen ko daan defee seen anglais baax na bu maitriser la politique am ngeen xam-xam boo xam ne ak pédagogie boo ma ngi yee américains yi wax leen li naqari bu ko defee ñun nag comme nañ ko daan defee rek ñun daan la ba dem ba dem bitee lu toj daan la manifester ba dem ci place bi aw këyit doo ko fa for daal na manifester ba dem ba dem police bu dikkee feelee taxaw nu jàkkaarloog nun di surveiller ñu def li ñu war a def fii bu ko teg Sénégal nun ñëpp noo ko bokk xam kon daal bu deux heures la deux heures maanaam deux heures la doon quatorze deux heures quatorze heures ñi ngi koy defee à la cent seize cent seize cent dix-sept ak Seven Avenue cent seize pour ngeen ne yomb na number two bi rek moo lay indi number two bi man na laa indi ba nga agsi number trois bi tri bi mën na laa indi ba nga agsi soo demee ci boor bale huitième avenue e nga fa di nga fa kon ñëw ni yokk du doon benn problème ñëw ñëw ñëw ci marché bi du doon benn problème da ngeen ma fa fekk da ngeen fekk sénégalais yëpp da ngeen fekk sénégalais yëpp daañu ko organise teg ko yoon ba bu soobee yàlla mbubb du fa xottiku biteel du fa toj te li nga xam ne moom lañ bëgg a wax danañu ko wax camion yi daañu ko gaare camion yi dañ koy gaare ndax camion yi moo tax Wall Street jot ci yi moo tax le de d'état gën cee jot camion bi ñu teg moo tax waa mairie ak municipalité bi gis photo yi xam ne Macky Sall du nit lim rey bari na ñun ñëpp ñoo ko approuvé d'accord si kon marche bi day yomb lewet neex fi nan bu daa yàlla daañu def discours yi kenn ku nekk wax ndax wax ji yenn rek la Macky ngi niy jeexal Macky ngi rey Macky daa war a dem Macky nangam waaw ak ñi mu ñoom Ousmane sonk ak kasu bi fees dell kasu bi fees dell dama dem Macky def li ne war a par force dañu ma libérer par force kon yéen waa Sénégal di leen yëgal ne léegi léegi ci samedi ci samedi ji à deux heures Sénégalais yëpp dans l' ensemble ña nga daje à la cent seize fa lañ koy defee kon maa ngi leen di ziara di leen bàyyi ak teen ñëpp na ngeen dikk na ngeen dikk nu bokk defandoo tey climat bi sax neex na New York climat bi neex na trop bu soobee yàlla daañu ko defin boo xam ne bu sell lay doon asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des consciences jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf